billahi min alsheytaan irrajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa saxaabatihi ajmain asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare di leen ndokkeel di leen balu àq di ñaan suñu boroom subhaanahu wa taala mu nangul ñu suñuy jaamu yàlla yëpp nangul ñu suñuy ñaan ca jéggal ñu suñuy bàkkaar di ko ñaan mu yàggal fi suñu kilifa gi sàmmal nu ko te yokk ko wér ba mu àggale ay yéeneem ak nu bëgg a dellusi rekk ci kàddu yi nga xam ne yu am solo yu fees dell yi nga xam ne sëriñ bi yëkkati na ko ci jullik eid gi ñu weesu te ajjuma ji ñu weesu sëriñ Afe ñëw na ci indi ci ay yokka leeral yu ama am solo waaye nu bëgg cee dellu rek ndax day kàddu yu yaatu lool yu fees dell yu bari ay njariñ ñu war koo dégg war cee dellu si ay yoon yoon ngir ñu gën a mën a jàpp bu baax a baax li nga xam ne sëriñ bi wax na ko ci kàddu yooyu ndax kàddu yu sëriñ bi ci julli gi dafa doon kàddu yoo xam ne mën nañu wax ne day xàll aw yoon wu yaatu woo xam ne mënees na caa jaar ba am li nga xam ne moom lañ bëgg mooy jullit yi nekk benn waaye day kàddu yoo xam ne it day teg ay fondement yu dëgër yoo xam ne mënees na cee tabax lii di jàmm ji nga xam ne moom la àdduna di wër kon mooy kàddu yoo xam ne dafay teg li ñuy wax ay mabaadi muy ay principe di leeral ay charte yi nga xam ne mooy tax li nu bëgg mën a am muy kàddu yoo xam ne yu leer yu dëggu waaye yoo xam dafa fees dell ak yërmande yërëm yërëm mbindeef yi yërëm jullit ñi fees fees dell ak yéene jullit yi nekk benn waaye fees dell ak xër ci réew mi nekk benn mu làmboo ay ndigal waaye làmboo li nga xam ne mooy tax jullit yi nekk benn waaye làmboo li nga xam ne mooy tax jàmm mën a am li nga xam ne moo jëm ci ndigal yi nga xam ne sëriñ bi da koy faral di baamu te sëriñ Afiya ñëw ci ajjuma ji weesu leeral ko bu baax a baax te mooy lim wax ne ñu gën a góorgóorlu bu baax gën a sàmmoonteeg sunu diine te gën koo fonk gën a sàmmoonteeg sunu taalibe te gën koo rafetal góorgóorlu bu baax itam ci suñu diggante di góor góorlu bu baax ci jëfe yit makaarimul axlaaq yooyu nga xam ne sëriñ bi wax na ko sëriñ Afiya ñëw leeral na ko bu baax ndax sëriñ bi ni mu bëggee loolu muy feeñ ci ay kàddoom waxtu wu nekk loolu ñëw na ci kàddu gi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 Sunu sëriñ bi ndénkaan ak fàttali yooyu nga xam ne def na ko te jëme ko ci suñu ñu war a gën a góor góorlu ci suñu diine ak suñu taalibe ak jikko yu rafet eh, ba góorgóorlu it ci notanteeg safaani jikko yu tedd yooyu eh, di di di gën a fonkante gën a yéenante lu baax gën a dimbalante te loolu lépp ñu def ko te yàlla tax ginnaaw loolu it sëriñ bi dafa am lu am solo loo xam ne ñëw na ci kàddoom yu tedd yooyu te mooy li nga xam ne mooy tax jullit yi mën a ànd mën a nekk benn ndax ànd day lalu ci kenn ku nekk la yàlla jagleel sa moroom nga nangul ko ko fa ko yàlla teg nga teg ko fa ba tax na mu leeral ne mbokki jullit yi nga xam ne ñoom la bokkal réew mi ñu bokk bokk bokk diine ñooñu yëg na taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ci sëriñ bi te loola mooy li nga xam ne nag mooy laltaayu ay jullit mën a ànd mu wax ne am naa xam-xam bu leer ci loo xam ne lu nu ñor la muy ñi nu seqal lislaam ji ci ci ci seen diggante ak sëriñ bi sëriñ bi nga xam ne moom rekk la nuy xool am nañ ci lu wóor ne ñi ñu ko seqal ñépp ci réew mi jox nañ sëriñ bi ak xam te nit nag boo ko joxee ak xam mel na ne des desiloo ko dara gis nan ni ñu yëge sëriñ bi ak xam gi ñu xam diggam ak boroomam loolu di lu am solo loo xam ne day wane ne kon jullit yi nga xam ne ñoom lañu seqal réew mi muy kilifay lislaam yi ñoom ñëpp xam nañ wàccuwaay bi nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala jagleel sëriñ bi te loolu nag ni ma ko waxee ab ànd bu nekk kenn ku nekk nangul sa moroom la ko suñu boroom defal loola mooy baasu ñu mën a ànd ànd bu rafet bu sell waaye sëriñ bi am lu am solo lum leeral mooy loolu kat bu mënee am sëriñ bi ci boppam moo ko fàggu cheikhul xadim radiallahu anhu moo ko fàggu ci aw nekkinam aw doxalinam ndax moom aw turam dëgg mooy al abdul xadim mën ne kon musta génn jaamu yàlla ak liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa mu wax ne loolu alhamdulilahi rabbil alamin sëriñ bi fàggul nanu lépp te lii dëgg-dëgg aw turam mooy al abdul xadim mooy jaamu yàlla rekk lay doon boo seetee diggam ak yonent bi nag ndigal li mu ci am surgab yonent bi rekk lay doon sax dàkk ci diggante boobu di jaamu boroomam di liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon sëriñ wax na ne nag loolu nga xam ne fala sëriñ bi nekkoon ba tax jullit yépp man koo nangul cër bi ko suñu boroom jox loola kon wan nanu yoon nun taalibe yëpp taxawaay bi ñu war a am ci suñu digganteeg suñu mbokki jullit yi nga xam ne nangul lañ sëriñ bi te mooy ñu teg suñu tànk fa ko sëriñ Tuubaa radiyallaahu tegoon kon loola doonut lu ñuy bàkkoo wata doon loo xam ne dañ koy ndamoo waaye dañoo war a def suñu warteef mooy ñu roy sëriñ bi ci sax dàkk ci jaamu yàlla waaye sax dàkk ci liggéeyal ko te liggéeyal ko mooy liggéeyal ko ci lislaam te mooy liggéeyal ko ci jullit yi sax dàkk ci rafet rafetal sunu digganteeg suñu mbokki jullit yi moo tax mu wax ne loolu alhamdulilahi rabbil alamin wan nanu yoon mooy ay jaamu yàlla lanu te jaamu yàlla rek lanu woon wan nañu itam ni nu ko war a liggéeyale ndax mooy rek ni mu liggéeyale yonent bi sallallahu alayhi kon nañu nanu ca def suñu kem kàttan duñu ko seen sax waaye ñu def ca lañu cay def ci suñu kem kàttan liggéeyal ko ko moom waaye liggéeyal ko ko ci lislaam liggéeyal ko ko ci lislaam nag mooy liggéeyal ko ko ci jullit yi mu ne kon nanu xam ne ñun jox nanu leen ñaari loxo fas yéene liggéeyal sëriñ bi ci ñoom muy liggéeyal ko ci lislaam loolu mooy sunu warteef mooy njukkal li nu war a delloo itam ñi nga xam ne séq nañu lislaam bi séq liggéey bi kon sëriñ bi loolu daf ñuy joxoñ fi ñu war a jaar ak fi ñu war a teg sunu tànk mooy sax dàkk rek ci jaamu yàlla sax dàkk ci liggéeyal sëriñ bi ca liggéeyal ko ci jullit ñi kon loolu bind la bu ama am solo boo xam ne bu ñu ko déggee bu baax taxaw ci bu baax jullit yépp taxaw ci kon ak bennoo ak ànd dina am ci biir julli ñi dina am ci lislaam te loolu la lislaam soxla loolu la diine ji soxla loolu la réew mi soxla fii mu toll waaye sëriñ bi ci biir kàddoom yi mu am woote bu am solo boo xam ne woo ko kilifa yi diine yépp ci lii tax jàmm am lii tax ñu mën a am jàmm mooy kilifa yi lislaam yi ànd nekk benn waaye ànd googu nekk benn sëriñ bi dafa tudd ci biir wax ji loo xam ne ay sart la yoo xam ne mënta ñàkk ngir ab ànd mën a am ngir jàmm mën a am loola tudd na ci dëggu mooy lislaam dëggu ci ñun ndax ab jëflente bu laluwut ci dëgg du mën a yàgg du mën a dëgër kon lépp dafa wara lalu ci ak dëggu lislaam di dëggu ci ñun waaye ab ñu ñu ànd nekk benn waaye ñu déggoo waaye ñu sellal yéene yi lépp ñu def ko te yàlla rekk tax moo tax mu ne loolu suñu ko defee jàmm ji nga xam ne moom la àdduna bi wut te xamul fu mu koy amee nee na jàmm dóor yi nañu ko am kon moo tax mu ne nañ góor góorlu bu baax a baax suñu yitte lam war a doon mooy lislaam dëggu ci ñun suñu dëggoo bennoo déggoo danañ am jàmm ji nga xam ne moom lañ bëgg waxuma la ci réew mi waaye ci àdduna bépp kon nit yi diine yi kilifa yi lislaam yi loolu nga xam ne kàddu la yoo xam ne sëriñ bi jëmale ne ko ci képp koo xam ne suñ boroom dénk na la ab cër ci diine kon loola lu am solo luñu lu war a dégg la lu ñu war a yaatal la te mu leeral bu baax sart ya te mooy lislaam ji di dëggu ci ñun ànd ak bennoo waaye ànd ak déggoo waaye ànd ak sellal yéene loolee nag nga xam ne sëriñ bi wax na ko buñ ko seetloo day wane rek gis-gisam bu sori wane rek ne moom xoolul rekk réew mi sax waaye gisam weesu na réew mi ba làmboo lislaam yëpp li làmboo jul yëpp dara nag ñi nga xam ne ñoo gën a yell mooy ñi nga xam ne ñoo bokk dëkk bokk di ay bokk waaye kuy mbokkum jullit rek kàddu yooyu mën nañ ne jëm na ci yow waaye woote boobu sëriñ bi woote jàmm ak ànd nekkul loo xam ne lu yees la sëriñ bi leeral ñu ne loola buñ ko toppee day dellu ba ci sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu ndax gis nañ fi mu jaar ba liggéey liggéey bu réy bi ba lislaam ak si fi lislaam te xat dëmmut deret tuuruwut kon muy kàddu yoo xam ne am na yeneen yeneen yu ci mën a génne yu am solo waaye mu doon lu ñu war a dégg lu ñu war a jëfe di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu defal ñu ak dégg ak topp ak jëfe ba li ñu sëriñ bi yéene bëggal nu ko mooy nu ànd nekk benn jullit yëpp ànd nekk benn nu am jàmm loolu suñu borom defal nu ko moom it yàlla yàggal ko fi ba lépp lu mu yéene mu sottal ko ni mu ko bëggee nu ànd ko ak moom wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.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 Allah الحمد لله المنعم المنفرد به الإيجاد الممد لأهل الإيمان بإيمانهم أي إمداد وفرع منه نعما لا تنحصر ولا تدخل تحت أعداد غاية محصولاتها الفوز بالخلود في الجنان والنظر إلى وجه معبود العباد وصلى وسلم على خير مناد لهذه السعادة نادى الذي يسعد يسعد من لبى دعوته ويبور من خالفه عنادا وعلى آله وصحبه الموضحين للطريق لمن جاء بعدهم من أهل التوفيق أما بعد فيا عباد الله أجيبوا داعي الله النصيحة بالتوبة إلى الله توبة نصوحا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إن الله يحب التوابين ويحب واصبروا على إقامة فرائضه التي فرضها عليكم دعاكم دعاكم بها إلى بها إلى حضرته ليكرمكم واحذروا من تضييعها فإن في تضييعها تعرضا لهلاك مضيعها من قام بها على سنة رسوله الكريم أجاره من عذاب نار الجحيم وأحل له رضوانه في جنة النعيم ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ولا سيما ولا سيما هذه الصلوات التي تدعون لها وهبوها أكبر من أخواتها وأجلها لأن مقامها في العبادات مقام الرأس في أعضاء الذات ففرغوا لها القلوب محل نظر الرب وطهروا لها الثياب والأجساد تفوز بالقبول والقرب إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وفي الحديث بني الإسلام على خمس shahaadati an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqaami alsalaati wa iitaa'i alzakaati wa hajji albayti wa sawmi ramadan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 وهيئاتها المعهودات على وفق سنة شارعها المرضية في كل بكرة وكل عشية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وإياكم ومبارزة الواحد القهار بالإنسيان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 وبقبول حسن تقبل منا ومنكم بفضله وجوده وكرمه آمين يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين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 شاء إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى وذكر إن بعد ذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه صلى وتؤثر من حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله الله أكبر حبنا ولك الحمد الله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 جارية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ومعارف مسلوبة وزرائب مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله